waaw waaw nee naa la sëñ Modou borom jaaro bi yegg si na moom li nga xamante ni bu yegsee dafay daal di neex jaaxle jeex ci réew mi ak bitim réew sëriñu lasaar la nee naa leen seet bu gaaw seet bu wóor sëñ Modou borom jaaro bi da koy def nee naa leen moo ci mën wala li nga xamante ni mooy li saxaar da lay wax li nekk ca kanam ak li nga xamante ni moom nga paas li nga xamante ni da nga bëgg bayre bu saf sàpp bayre xaalis foo am li nga xamante ni mooy xaalis nomba karange ak li nga xamante ni mooy tul mën a am li nga xamante ni mooy assurance baas moom sëñ bi da ay defar waaye yow mi nga xamante ni dangay bëggante nopp ñaari nit yi nga xamante ni dañoo bëggante lool ba jéggi dayoo sëñ bi day liggéey li nga xamante ne mooy nopp ci nu mu gën a gaawee waaye yow mi nga xamante ne da nga bëgg tukki tukki tëla fu nekk nga dugg fa di la jënd li nga xamante ne mooy papier ñëw si sëñ ibbeeku bëgg li nga xamante ne mooy bayre foo tollu gaay yi wër nga yor place ak foo ti nekk yow mi nga xamante ni da nga am faiblesse sexuelle la mënuloo sa soxna dara amee hémorroïde interne wala externe bu nëbb bi wala bu xamante ni mooy bor kenn mënu la kaa fay xanaa ak sëñ bi moom mën moo ëpp doole nee naa la sëñ bi benn sëriñ la nee naa la sëñ bi mooy borom jaaro bi nee naa la jaaro la ci biir jaaro yi képp ku jëflanteeg moom nee naa la sungufam benn sunguf la ci réew mi sëñ morom borom jaaro bi ndaanaan la ci biir ndaanaan yi टाइफ करो ने nekk ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salde de ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay carofeyeuse pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay caro parquet lépp am na ci biir Taïf Caro ay caro espagnol 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Caro li ci gën a neex mooy Taïf Caro defal clients yi promo boo jëndee caro yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Caro nee naa la matérielu sanitaire. Air ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy 16 anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau 2 wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88. 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo ayca ñoo ngi leen di di leen ziar bu baax a baax demaat mbégte ak contentement bu baax a baax jàkkaarloo ngeen si site bi mag bi di Lutte Motivation di leen jaajëfal mais di jaajëfal ñi nga xamante ñoo tëdd ci loolu hôpital yi di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér le également tamit ñi nga xamante caabi da leen féete ginnaaw ñoo ngi leen ñaanal li nga xamante mooy liberté ba ñu mën a génn continuer li nga xamante mooy seen activité waaye seet si un très grand champion seet si ndaanaan seet kenn koo xamante ni à chaque bu ñëwee ci làmb day jëmbat li nga xamante ni mooy fulla ak fayda muy njambaan buñ nee njambaan xel yi dem ci Balla Gaye 2 buñ nee njambaan mooy Boucher Ketchup mbokk yi dama koy bàyyi mu nuyoog yéen bu ko defee ñu woy li nga xamante ni mooy waxtaan bi njambaan maa ngi lay ziar. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla junn ci yoonante bi sant sunu ñaari waajur di ñaanal ci ñi ci lalu hôpital yi yàlla leen sunu borom yëkkati jàmm ak salaam bañ dellu seen kër yi yàlla yërëmal ñu sunuy ñi nekk ci kaso yi yàlla na leen suñu borom may liberté bañ dellu si waat seen kër yi. yàlla na yàlla def ci maanaam adduna bi jàmm def Sénégal jàmm def Sénégal nawetu jàmm def Sénégal jàmm waaw. di sant fii nga ma fekk nii sama sees bi mbaaru sañ Fallou di fi sant ñi fi nekk ñëpp ku ci mel ni wékk ñu naan ko Alioune Seck Diop Sow laay bëgg jiboo laay bu jiboo taaliba Cheikh la grand yu kotsu sërif maa ngi koy siyaar di siyaar waa koñ bi di siyaar sama jantal grand be ne nga xamante ni El Hadj moom moo ciy jàpp quoi di siyaar koñ bi ñëpp nag di siyaar waa Géejawaay ñëpp di siyaar école Ligue Mor Forum cat ba cat Pate Silla père Mao père Ngaylum mbëri fan nekk di leen félicité Cheikh Super Jamono ñi fa ñàkk ñoom guy gi ñu ngi leen di siyaar suma benn grand saakajoor Dior maa ngi koy bëggee wér di ñaan yàlla yàlla yokk jàmmam di ñaan école ligue Mor Fadam bi ñëpp cat ba cat Pathé Sylla waa di félicité Pambaay di ñaanal école ligue Mor Fadam bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen ñaanal ndax man lu ma mel rek ñoom la dama la ñu ndamoo di leen sago fu ne di félicité Balla Gaye Lion de Guédiawaye Roi ampleur gaynde gu mag yi ampleur roi des arènes ampleur gaynde gu mag yi waaw Balla Gaye 2 loolu yëpp moom empereur nga wax. roi des arènes empereur roi des arènes. Balla Gaye ñaar yëpp moo ko téye. Modou Lo mooy roi des fu mu nekkee roi des ku la daan ñaar yoon noo nekkee roi des arènes Modou Lo Balla Gaye mooy roi des mooy empereur ñaar yëpp moo ko téye waaw. am na solo mais gis nañ combat bi. bi mu taxawee si diggante bala Gaye ak Tapha Tine. di siyaar sama jantal grand El saw Sow grand bi waaw day jàpp ci affaire yi. waaw bëgg waa koñ bi yamala ñun ñëpp li mu am mi ngi koy bokoo ñun grand El Hadj Sow grand bu baax jantal grand amuñu fayam quoi ñun ñëpp la boole ci koñ bi njaboote ñu lu ma am lu ne mi ngi koy bokkoo ñun jantal grand di ñaan yàlla na jàmmam yàgg waaw mais gis combat Balla Gaye ak Tapha bi mu taxawee coow li dafa bëri waaw lu tax Balla gay dugg si Tapha Tine ak performance yi nga xamante ne Tapha Tine def na ko ak dayo bu nga ñëw yow ñëw nga fii jël ma émission man la Balla Gaye day daan Tapha Balla Gaye day daan Tapha Tine Balla Gaye chaque quatre heures matin fii la noonu ma jël si fii xoolal route yi chaque quatre heures matin ñuy dem déeni Biram Ndaw lii maa ngi koy door a wax xam nga. déeni Biram Ndaw chaque quatre heures du matin. bu ñu yéegee din ba pare contact. ñibbi si waat demande musculation. Balla Gaye liggéey ci liggéey gu méttee méttee méttee boo xamante ni Tapha Tine xoolal bu ñu bëree woon une semaine du am rëpp ci Balla Gaye. une semaine. une semaine barki Cheikhul Khadim ak yàlla moom doole joo xamante ni. musu koo liggéey sax ci bisam. di kontak yéegi din contact din ku la ko gën a ñeme moo la ëpp doole. waaw. ok bu nga ñëwee si stade bi gis ki nga xamante ne mooy Tapha Tine keroog nan nga gise non Tapha Tine champion la. ndaa naan ku li fadrin la bawol am nañ mbër te nañ ko jàppale. champion la ndaanaan la dafa rayante ba egsi ba fii di fayeku millions yu bëree baree baree bëri maanaam Sénégal nañ bàyyi critique gi Sénégal bëgg nañ sport mais xamuñu maanaam mënuñu encourager nit ñoom victoire rek lañ xam victoire kuy daanu yaay tokaar yaay cuune yaay yambar wi dafaati li mu daj ci combat mook Balla Gaye ko daj. est que jàpp jàpp ñu euh, ñoom euh, jàpp ñu ñoo ne kat ki nga xamante ne mooy dafa at moomu ba tax na looloo tax ñu. non tey jii koo mënal bëre boo leen jàkkaarloo àdduna moom noonu la kenn du nangu sa moromu góor mën la mais Tapha Tine champion la ndaanaan la tamit bis boobu yàlla moo àndul ak moom rek dafa daje gaynde goo xamante tamit tamit jour boobu tamit nu mën a def ñàkk waaw Tapha ban problème lay am à chaque fois buy dajeeg Balla Gaye Tapha nax chaque jour Tapha Tine biy dajeeg Balla Gaye moo ko tey ngeen xam Balla Gaye chaque jour biy dajeeg Tapha Tine day dem contact gi yéegi din Tapha Tine chaque jour lu koy xaw a ñàkkaloo combat moom Balla Gaye day topp musculation bi. musculation bi lay topp musculation bi. ñaari combat yëpp Balla Gaye da ngay gis day pare dem contact yi nga xam ne bu daje fu mu bëkkanteeg Tapha Tine rek day xam fu mu ko nu mu ko fu mu ko war a jëmalee. saa su ne Tapha Tine nag moom dóori gan contact lay weñ bi lay gën a focus quoi. waaw. ñu bëree ba pare euh, Balla Gaye 2 mais euh, Balla Gaye daan ko mais balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy euh, détails yi mais. gis nañ ci biir bëre bi Balla moo bëre moo xeex tamit moom moo daan waaw parce que gisuñu benn yoon tabaatin fu mu xeexee fu mu bëree gars yi ne dañ ko jàpp mystiquement. non tabaatin kenn jàpp ko mystiquement gis nga yàlla bu lay xañ nit ñi loolu lañ xamul yàlla bu lay xañ jour booba cuuna ngay nekk. yàlla moo naan tey kii la lu mën a xew tey kii la mais Tapha kenn jàpp ko ci gàllaaj kenn kenn téewul loxo yi dafa dem ci ay mbokam waajal kii dem ci ay mbokam waajal rek kenn téewul loxo yi Sénégal yi nañ bàyyi loolu ñuy jël di ko def seen xel. mais champion bu toll ni Tapha Tine Balla Gaye di ko dóor te fayul. mais Tapha moo njëkk a dóor Tapha moo njëkk a Tapha moo attaqué Balla moo kor moo njëkk a dóor kor moo njëkk a gis nga ku jàpp dëgg do mel ni Tapha Tine gars nañ bàyyi seen xel yi ñuy fooyee yow sérieux gisoo loolu yow. barki Serigne Bamba gisuma loolo Tafaatine Balla Gaye dakaa nax daa dem di yëkkati ji ay weñ. te li naka neex Balla Gaye nekk ci dini làqatu di contact. contact yéegi din contact te xam nga mu contact rek Balla Gaye plus de deux mois ci dini di contact chaque quatre heures du chaque quatre heures du matin nit mënu ko gis signature lañ koy gis bu paree signature am na ñoo xamante ne sax ñooy nekk ak moom duñ ko gis chaque jour moo tax bi mu dalanteeg Tapha Tine Tapha Tine doole Balla Gaye luñ ko mën a ñaanal ñaanal ñaanal sëriñ ci àdduna bi tamit moo la leen nga dégg te amul doole du mën a tenir Tapha Tine. mais mais gis nañ après combat bi si ëllëg si ay sëriñ génn ne ñoom ñoo yeewu loxo Tapha na nangam ak nangam. sëriñ xamuñu dara xamuñu dara chaque jour ñu ngi mu ñu daan ko nañ bàyyi loolu sëriñooy wax loolu xamuñu dara lamb doole moo koy def ak fit sëriñ lum mu la ñaanal sëriñ nañ dem ñaanal ancien gloire yi fi nekkoon nañ dem ñaanal yenn yi fi nekkoon nañ dem ñaanal ay ngéelu ay perma wa mba xam nañ daan kenn duñ daan kenn. nañ bàyyi loolu ñuy def seen xel lamb doole la ak fit boo ko amul dama toogee. mais ñamaan est-ce que Balla Gaye Tapha Tine du ko ragal comme lu gars yi di nan lay ragal ci Balla Gaye Tapha di góor yàlla dëkk bawal nekk Baye faal tigi nu muy ragalee non du ragal. Tapha Tine xeex carrière am jaar ci ay Bombardier jaar ci ay champion yoo xamante ay Eumeu seen jaar ci ñooñu nga xamante ni ñëw ba ci Balla Gaye di ko ragal noonu du ko mën a ragal. maanaam nitu kersa la Tapha Tine nitu kersa la boo xoolee sax nga xam ne kii dafa timide waxam bëriwul. Sénégal nag moom foog nga takk rajo yi di mbararari ñu naan kii mooy borom fit nga nekk ak faa nangam nangam mais Tapha Tine nit ku timide la. waxam du bari genre nit boobu la. maanaam li ma gis ci moom day gaaw a énervé moo tax waxam du bari mais Tapha Tine du ragal. yi ñu ne Alburax moo tëgg combat bi yaay ngi dégg. te ñoom sax Balla Gaye lañ faral coow li bari yooyu nan ko gisee. Alburax ku leen santul gërëm leen waa Géejawaay gi yëpp dañ leen war a sant gërëm leen waa Alburax Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye dañ ko war di ñaanal saa su ne dañ ko war di ñaanal Aziz Ndiaye. nit ku baax taaliba cheikh bu baax a baax baax Ndiaye dañ ko war di ñaanal gis nga Sénégalais yi nañ jël ne esprit boobu ñu def seen bopp jël ko teg ko fële. ñi Aziz Ndiaye ko fi Balla Gaye Bombardier bu njëkk ba nu mu demee. Bombardier moo daan. ngemb fi andiwaat Bombardier Balla Gaye ku daan. Bombardier moo daan. ngembul Balla Gaye andi ko moog Boy Niang ku daan. Boy Niang moo daan. na ñoom nañ bàyyi xel yooyu Sénégalais nañ bàyyi yooyu ay Aziz Ndiaye ay ñooñu dañuy liggéey ñooñu dañuy liggéey Balla Gaye seen mbër la fii yu ne. ku ne am nga sa mbër promoteur yëpp boo limee ku ne ma wax la waaye yow waaye li nga fës mooy lan. ñoom ay dernier galaaj sax moom moo ko jox. waaw léegi. waaw Balla Gaye Aziz Ndiaye mooy mooy agent moom tëgg Aziz Ndiaye na leer tëggul làmb raqam mu tëgg lamb te Aziz Ndiaye bala Gaye bu doon buy bëri day wàcc wax ak moom parce que moo yor léppam. mais gars yi nee nañ Aziz mooy baay baay mooy ndam. Balla Gaye dafa dem liggéeyi bu ñu loolu Balla Gaye dafa dem liggéey xalil ñoo nga jël si ma fii man la Balla Gaye day liggéey chaque quatre heures du matin Balla Gaye day entraîné c'est que maanaam Balla Gaye day déranger ñu baree bare moo tax ku di génn di wax di génn di wax waaw Aziz Ndiaye mënul jox Balla Gaye ndam Balla Gaye dafa dem liggéey ñàkk ok seul le fay qui faye n'est pas travail n'est pas mais gis nañ ki nga xamante ni mooy Balla Gaye na ba pare cool yu bëri. ñi naan ay couronne kuron ki la quoi seen petit gaale la bee moy kuron bi moy kuron roi des arènes bi yoy nan ko gisee. ñu ne kuron kuron sen petit gaale ñan ñoko wax. gaay ñoo wax ban mbeur moko wax bala ban ni da ko wax wax ma kan moko wax mat <laughs> wax ma kan moko wax. ñooy ba gaay tiktok bi sisu sumaan nga may bëgg waxal fi ni amna ño ñoo niñ mel neexu len ok empereur bo xamante sag chaque dañ lay fay un million cinq roi des arènes roi des arènes dañ ka mësa fay fikki deureum carotte. mais empereur bi dañ ko créé nii rek. roi des arènes dañ kaa créé. roi des arènes dañ kaa créé. mais jamono ba tey roi des arènes. roi fay ñu ko reconnaître ñu ko empereur mooy roi des arènes mooy empereur. yéen ko defaral seen ñoo ko defaral seen bopp. roi des arènes CNG daa mës a jël 16 mbala mu jël mbala mu jël kii bi jox bi mooy dem ut 16 mooy dem ut kii bi. ñëw jox la. waaw jeex na. léegi roi des arènes eh, roi des arènes kan moo joxe ko seetlu li ma la wax ba tey bi mooy dem créé ko ñëw andi ne roi des arènes laa fi teg. bu moo hésité. roi des arènes a hésité tax na empereur dañ lay fay looy nekk lu dugg mu muy door dugg ci làmb doon rêvé loolu yàlla naa jël roi des arènes. roi des roi mooy roi des arènes ne nii. mu mooy roi des arènes. Modou yoon la ko daan. Balla Gaye mooy roi des mooy empereur léegi moo yor am empereur. moo yor ñaar kon xanaa nekkul empereur. moo yor ñaar yëpp Balla Gaye moo yor ñaar yëpp parce que ku la daan am. kon nekkul empereur Boy Niang. non nekkul. empereur Boy Niang nekkul empereur Boy Niang foofu nangu naa waaw. nekkul empereur empereur Bombardier. foofu nangu naa. foofu ak Issa Pouye. nangu Issa Pouye damaa daan ma daan ko. waaw damaa daan ma daan ko li nga wax ni yëpp bu ma la nangulee fii rek may nangul fe, Modou Lo du sama roi des arènes. maa duma daan ko ñëwaat ba koñam jàpp ko duma ko daan ko mais gars yi ne ne waa parcelle pour ñu perpé waa Guédiawaye dafay dafa quoi. dañuy siisu. siisu man lañu waa parcelle. Modou bu jàkkaarloog Balla Gaye fit beedul taxaw yow loolu ngeen xamul Modou Lo ñemewul Balla Gaye. mel ni Modou Lo nga barki Seexul Xadim ma yaakaar laa la wax Balla Gaye bu ma Modou Lo wër ndomba Modou Lo mënu kaa daan ndax bu ko bu ko day lox man xam naa li ma la wax day lox <laughs> Modou boo ji wëroon Balla Gaye ma wër ndomba day lox Modou Lo na lu ko ji fekk moo tax mu a du ma bëreeg tey damay bëreeg ay nangam ak nangam dégg naa ay yenn mbër yi nekk parcelle yenn sii maa naan ay Balla Gaye nii ay Balla Gaye naa li jéem leen def li Balla Gaye def loolu mooy wax ji. ok waaw nga dugal ci Eumeu Sène. comment la. Balla Gaye. mën na xaa dugal ci Eumeu Sène Modou Lo mu jël seen ñaari avance pare rek rythme bi mu jël nag de. Hmm. rythme bi mu jël nii bii bii mu continué wa mu continué war rek nga xool. xajul ah, na ñaari yoon de. kan daan na la. waa mais lamb la. moo la mais lamb la lamb kenn mënul kenn. Ah. mais day am ñoo xamante ne da nga leen ñu neenu. ci ah, xoolal waaw léegi ma wax la lenn. waaw Balla Gaye chaque jour biy bëreeg Eumeu Sène. Hmm. day ñëkk. day bëgg a jàpp Eumeu Sène xeex ak moom te nekkul ne Eumeu Sène da ngay ñëw xeex ak moom da ngay ñëw jàpp bëreeg moom. mais li nga wax fii moom la gaa yi wax fële de ne Modou Lo tamit dëggalee boppam taxaw bañ a jël ay initiative dem fekk ji Balla Gaye. Modou Lo cinquante combats du am ci Balla Gaye rëpp. làmb lambu làmb laa la làmb laa la doo dégg ne Balla Gaye yenn mbëri dinañ toog ci kawam yenn mbëri nag laa wax. waaw ndax Balla am na ñoo xam ne bii dajeeg bii dajeeg ñoom. ñu baal ma ci wax ji de ay tafaatin ay modloo yeneen mbëri lii la ciy teg lii. yàlla nag moo yor ndam mais lii la ciy teg. combat moo tafaatin bi laa ko xam. Balla mbër mënatu kaa gaaw a daan ci arène nationale bi ma wax la ko tey nga dégg ko. Hmm. lii mala sàcc wax la fu mu nekk nii. daa am lu nekk ci moom mooy dafa jël maanaam yoon ba mu bu njëkk moom la jëlaat fu mu nekk nii liggéey tëdd nelaw. Balla Gaye maanaam bu dul làmb gis ko nii sax léegi jafe na. waaw di ko ci ñaanal nag loolu yàlla na continuer. ok waaw ah. gaa yaa ngi bëre combat yi ngi taxaw. waaw ñam man foo toll sa diggante ak ñagas fu sama diggante man ak ñagas fu mu toll Baye Ndiaye moo ci des. keroog woo nañu ba këram maa ñagas ñu daje ma jàpp ko fa man ma ma fa ñagas duma ko fa duma yu metti ñagas dama fa Baye Ndiaye xam nga kilifa la te mi ngi may seetaan télé laay waxee en direct keroog la ma woo maa ñagas këram am na kilifa yu bëri fa toogoon ma jàpp ko duma ko daan ko. Balla Gaye Tapha Tine ñagas comme ni ma kon Balla Gaye def Tapha Tine def ñagas ndax ñagas ñam na benn. ci kanamu baa Ndiaye Baye Ndiaye moo ñu ruumal digg saala ma jàpp ko def ko fa lu dara jalu yenn ba ci kaw dóor ci suuf. mais xeexkat la de. ñaxas ba mën a xeex. ñaxas ñaxas dama ko jàpp keroog def ko la ma neex te bu ma ko ñaxas moom buñ ma fay moom ñaxas moom maa baa wax Baye yi ngay taxawal. Hmm. ñun jox ñu ci ñun doomu géej waaye ñun loolu laa am benn lancé ma lay benn benn nu ñu koy waxee. Euh, euh, message boobu. Hmm. jox ñu ci école Ligue Mor Faram Baye Ndiaye hmm. école lig Mor Fadam gesu ko ikiri waalo gesu ko ikiri Balla Gaye xam naa ne gesu mais gesul ñetti ikiri yi ma wax surtout ikiri dafa am ay ndaanaan Baye Ndiaye boole ñu ci parce que tamit mënuñu toog di entraîner di entraîner di contact di contact di dañu war a am parce que daa am ñu ñu bëgg waaw ñu ngi lay boole ikiri Mor Fadam Baye Ndiaye Aziz Ndiaye fa la noonu nekk di contact mm. waaw delloo njukkal gi foofu noonu jël fa ay quelques boy yi waaw ñu ngi fa gars yi ngi jàpp bu baax ay parti président fu ne ñu ngi fay wax mais Baye Ndiaye gesul waaw Ama Balde Franc taxaw na boobu làmb ko gisee. je te te te te wax nga làmb ju garaaw a hmm. démb la hmm. ah, jooju de maa ngi ñaanal Ama ndam moom. Ah. waaw Ama laa ñaanal ndam. loo ngay ñaanal benn mbër rek laa am ci àdduna ni may gisee nii benn mbër rek laa am ci àdduna. muy Balla Gaye 2 man du mbër ci àdduna mais Ama ni def Balla Gaye ma def ko noonu Ama laay ñaanal ndam lu rëy maa ngi koy waaw. kan mu nekk ci ñoom ñaar ñëpp a nekk ci risque. Hmm. Franc moo gën a nekk ci risque. Hmm. ndax combat ñaar ñoom ñoom ñaar ñëppay ñëw Ama day ñëw Franc day ñëw maa ñaanal Ama ndam bu rëy. Hmm. waaw. ma beneen combat. combat Zarko yoon nekku ci combat sama yoon nekku ci. non non ñoom ñaar ñëpp duñ samay mbër xaw ma leen xamuñu ma xaw sama yoon nekku ci. xamoo Zarko. Zarko ah. Zarko mi di perte bi waa Guédiawaye. Hmm, Zarko ñaari combat yi jógee Guédiawaye dañ kaa jàpp noq daan ko muy nekk fii di sonal nit ñi di jéem a takk ay bandi. Guédiawaye dafay mës a am ndam Fifty Cent Dakar daan guy gi daan ko Sa Thiès daan ko. am na fit de keroog ñëw na si place bi de. tapet la. fils de Balla ko man aller le tour. Hmm. yi muy def noonu Guédiawaye dafay mës a daan kenn Guédiawaye lan la fi mës a daan bëgg a naan ay Balla Gaye man Zarko maa ko war a mën a may sans sax. Zarko maa ko war a mën a may sans sax. maa ngi lay bu baax. di yeneen combat yi ci des yi euh, école Ligue Faram. Hmm. maa ngi ñaan tamit na ko yi gëstu école Ligue Mor Faram ay na fa nekk maa ngi ñaan gars yi promoteurs yi nañ gëstu école Ligue Mor Faram ndaanaan yaa ngi fa barke Serigne Touba Mbacke ay Cheikh Super jamono ay Pambaay. voilà leen gëstu sama xel ci lu mu dem. Balla Gaye keroog communication bu mu def. ne waa CNG ay sàcc lañ. waaw. loolu est-ce que la waxam la loolu lu mu waroon wax. en tant que champion tant que champion foofu noonu maanaam. wax bi garaawal quoi parce que xaalis dafa sax ci xol. mais ay papay jàmbur. xaalis dafa sax ci xol. Ah. buñ ko jëlee rek am na nooy réagir noonu la rek xaalis bi ñu jël xam nga Balla Gaye dafa bëgg xaalis ni koy noonu xaalis bi ñu jël rek moo sax ci xol bi xam nga mu waxee noonu mais Sénégalais ñooy bëgg jaar fii taaw yi wax ji taaw yi wax ji. mais mais fi mu ko waxee la nag. non loolu dara. loolu dara publiquement ne waa CNG ay sàcc non loolu dara loolu dara waa CNG ñu baax lañ sunuy papa. sanction yu ko ci nar fekk nag. non sanction ko ci mën a fekk waa CNG tamit sunuy papa lañ ah fii mbër def na fi lu ne fii mbër wax na fi lu ne yooyu du yooyu yooyu du débat yooyu du débat. loolu du du débat gars ko bëgg a jël rek andi koy ju gën a garaaw yooyu mais du deba waaw. bala ngay taxaw ne waa CNG ay sàcc li nga ne loolu loolu loolu du ay papa yu jàmbur. Balla Gaye la dañoo am ay dañoo maanaam Balla Gaye lamb ji ak mook Tapha Tine ci jàpp rek mais façon faxasal bu ne def nañ ko ci Balla ñëw ci buntu stade bi trois heures et demi. Hmm. waa CNG dem andil ko lu ma trois cent demi. Balla Gaye boobu mu tëb du coobareem di bu jaaree nii ñu ne ko fii ngay jaar bu jaaree nii ñu ne ko nii ngay jaar yàllaa ko dimbaleeg ñaanu waajurum ak Serigne Touba mais Balla Gaye la xoolal trois cent demi lañ ko andil te lamb. maanaam lamb dafa am ay tegtal. lamb dafa am ay tegtal yoo xamante ni. lamb dafa am ay tegtal. est-ce que nga. dafa am ay tegtal. gars yi nañuy dawal picc nañuy dawal picc lambu dañuy dawal yërmande mais da ngay ñëw ci lambu xam nga gars yi nan la fii ngay jaar nii ngay def jël say bagage pousse fee jël ne bu max fii jël fii nii nangam nangam nañuy dawalante dawalante yërmande quoi. waa jaajëf cantal gërëm ñeena la doom day waaw waa di sant sama di sant euh, géejawaay gi yëpp di sant Lat Diop hmm. Lat Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko gërëm Sénégal nag booy wax ñu ne diw dañ kaa génn wax loo wala diw dañ kaa def loo nii gën man kenn gën loo wax loo ma. dañ kaa fay dañ bàyyi genre moo yooyu noonu dañ kaa fay ak dañ kaa wax man kenn wax loo ma Lat Diop man aw ma numéro am Lat Diop xaw ma fu buntu këram féete. you mais nañ ko dafay liggéey. Sénégal tey boo tegoon Sénégal. teg euh, teg euh, boo tegoon Sénégal teg géejawaay na Lat Diop ban nga ciy jël nga nekk président bala nga nekk euh, kiiw géejawaay danaa la man maire géejawaay laay nekk boo ma ko joxe ma def ko ni États-Unis Lat Diop maanaam Nelson Mandela la Nelson Mandela day liggéey ndax dëkkam day liggéey ndax goxam Lat Diop muy nit ko am nit ku am ambition Lat Diop maa ngi gis nag yenn gars yi génn di wax di di wax lii di wax ni mais maanaam Lat Diop Nelson Mandela la nit ku baax Nelson Mandela goxam moo ko ñor tey ji bu ñu ko joxoon géej mu def ko ni États-Unis man nag damay wax lu leer aw ma numéro am xaw ma fu buntu këram féete mais maanaam ku am ambition la ci géejawaay gars yi nañ koy jàppale bàyyi génn gi di wax di wax lii di wax lii di wax lii di wax lii loolu amul sens nit mënoo kaa tagg sénégalais xam la mooy seen problème nit mënoo kaa tagg daaw xëy ren ba kaa xalab loolu du ànd gor man loolu laa gën a ragal. Ah, combat ñàkk jariñu ah, Jackson benn mbër ñëw na ko mais ñëw naa ci Lat Diop jàppale wu ma nangam ak nangam ñu war a dugg instant nii de mu yor benn cent mille na ko am. na ma ñamaan nañ tourné ñibbi Omar mbay jour boobu seraan nañu làmb ji man ak moom nit ku gore noonu lay mel gis nga Lat Diop bu amoon cent yu mel ni Omar mbay rek maanaam day nekk président day nekk euh, maire Guédiawaye parce que kooku da kaa bëgg te tricé wu ci loo wax mu ne la Lat Diop Lat Diop.